lay jërëjëfal bu baax a baax a baax a baax ndax yow mii tey boo fi ñëwee tey ngay lancement suñu yoon bi ñun ñi jigéen yi nga ko defal ak suñu njaboot gii ndax ñun bokk nañ zone boo xam ne balaa nga ñëw fii da nga doon dox ba sonn tey yàlla def na ne saafara nga saafara nañu ba mu baax ndax si ndimbal monsieur le maire mii di la ñaan nag comme ni Mansour wax léegi jigéen yi nee nañ nga dimbali leen ndax monsieur le maire mu ngi def tout pour ñu am mais nag ginnaaw bu ñu neew wolof Njaay nee na bu ñu gisul yàlla bu ñu gisee yonanti jàpp ci moom gisuñu maki Sall yow la ñu gis tey yoon lay yobbante ci monsieur le maki salla dañoo bëgg li gën a fort mooy toog ak jigéenu littoral bi toog ak monsieur Macky Sall ndax ñun tey lu ñu am moom la ñu am bu wote jotee dañuy ñëw wote bu lu monsieur le maire woote li jëm ci Macky Sall moom dañuy ñëw kon nag dañ lay ñaan financement yi gën a dugg si ñun ñaan jeunesse bi amuñu ay moodu moodu jeunesse l'Israël bi kenn génnul dem moodu moodu ñun ñëpp ñu ngi teye suñu doom yi si biir tool yi kon nag lii Mansour wax léegi dañoo bëgg ndox mi ñëw courant bi ñëw nga dimbale jigéen ñi financement yi gën mun a dugg si ñun. Sénégal émergent gi nga xamante ne mu ngi koy woote gis nañ ko lii mooy Sénégal émergent kon nag nun producteurs yi nga xamante ni bii mboolem luy dundal zone bi yëpp fii lay jaar tey am nañu kontaan ci bi nga xamante ni bii lii ñëw na ci sunu kanam. sant ministre bi di ko ñaanal ndax it gis nañ seen taxawaay ci programme bi nga xam ni moom la président Macky Sall taxawal waaye nuy yóbbante premier nuy yóbbante ministre bi nii sunu doom ji ñu sànq nga xam ne moom lañ teg suñu kanam muy monsieur Magueye di maire de la commune réew mi mu nekk sant nañ ko commune bi mu nekk sant nañ ko fépp foo xamante ni bii nag président mos na faa am soxla rek jël na alalam mag temps dem defi ko fa kon li ngeen kon njukkale tey rek dañuy jàpp ni doyul dañuy ñaan ngeen dolli noo ngi wax daal ni sant nañ leen gërëm nañ leen noo ngi leen di ñaanal yal na yàlla dogal lépp di jàmm. équité teritorial équité sociale mooy séddale lépp li nga xam ni am na séddale bu rafet séddale boo xam ni ñi nga xam ne amuñu woon dara ñu mos ñi nga xam ni aussi am nañu ñu xam ni peut-être yenn saa yi war nañu xaarandi ba ñeneen ñi jot. yakarna naa moy définition euh, donc euh, ministère bi nga xamni euh, monsieur le ministre Mansour euh, donc mi ngi ko yore donc di gërëm di sante wa population Kër Daouda ci Kër Simbara ñom la waron jëkkee parce que depuis 1960 ñi ngi xaar li biñu accès ñu am yakar mu yéex lool way nak ñu and ak ngor ba tay ñu war ko taal donc dama leen di gërëm di leen sante gënaaw biñu amé donc donc. Euh, xam compréhension ben nangu xaar ba léegi ñu doog ko taal di wax ñeneen ñi nga xamni aussi amaguñu incha allah ñu ngi ciy jublu te dégg leen dégg ngeen ministre bi limu wax mën na am mo gëna gaaw sax mais am nañu yaakaar ni dëkk kaw yi yëpp dinañu am courant non seulement pour xalé yi dem école mëna jang sen leçon mais pour que nit ñi am lumière pour que nit ñi aussi euh mëna def lepp lo xamni ñi ngi koy def ci biir taax yi. ñi bëgg liggéey liggéey yaakaar naa exode bi dina wàññeeku bu boobaa yaakaar loolu aussi bokk na ci koom-koom. tey jii ma macha allah am nañ def nañ tournée bu am solo tournée boo xam ni indi nañ ci ñetti étape ñetti gox bu ci jëkk mooy au niveau de Noto ñu demoon lancer les travaux yi nga xam ni defar yoon piste boo xam ni mooy Noto dem kër Oumar dem kër Malo donc mu nekk piste boo xam ni dana dana permettre juróom-ñetti dëkk nekk gox boobu yëpp. mën am ci yoon nga xam ci lañuy jaar lu ci am solo moy gox boobule dafa nek zone bo xam zone manam mbay la lepp lu jëm ci affaire maraîchage salade sec manam carotte yek yu démé noonu donc mu nek activité bu am solo bo xam mi ngi fa doon am mais pour mu mëna développer dafa amone problème yoon yoon yi dana tax dëkk ak dëkk yi dem ak dikk bi gëna a baax gën yomb piste bobu mën wax ni banque islamique de développement mo moo ko financé ci toll lu toll ci 800 millions de francs CFA té mu te file quelques heures pour sobé suñ borom dana paré benen étape ci top dañ demoon kër mir Ndaw kër dëkk bob nak euh, président de la République dafa mosoon jaar ba mu fa jaaree population mi génn vraiment ni ko ñun fi benn soxlo dong lu ñam muy problème ndox tay ji président nak saafara na lolu denk bir mi PUDC bi nga xamni euh, coordinateur moy Cheikh Diop makoy féliciter au passage ñu lancer les travaux de réalisation de ce donc système addition de Forage le, château d'eau avec réseau de distribution pour un coût à peu près de 180 millions de francs CFA bi nga l'État état Sénégal Il y financé fii rek ñetti weer waa Kër Mbir Ndaw bu disposer ndox état au niveau de la commune de Fanden. le ministre directeur de cabinet euh, maire de Fanden, Augustin Tine donc mu nekk teeru teertu boo aussi euh, teertu am solo du ko président de la république ñu ñëw fii nag pour lancer Madame mise en service euh, réseau euh, Madame courant nga xamni mom lañu la ñu kër waa kër Daouda Cissé tay ji dëkk bi mu né dana lèr non seulement mbedd yi dana leer waaye euh, kër yi dañu am courant bo xamni borom machine yi dañu mëna a liggéey borom les menuisiers dañu mëna a liggéey les menuisiers métalliques dañu mëna a liggéey képp ko xamni da ngay am jumtuway bo xamni da nga bëgg liggéey soxla courant. tey jii bis ni ko tey courant disponible na pour dëkk dëkk bi nga xam ne mooy Kër Daouda Cissé liggéey gi mën a dox koom-koom yi gën a yokk.